Fagué laa tudd. Fagué ça va. ça va bien. ok yaa ngi ci jàmm. ça va tey su ma la doon laaj Fagué xale yu góor yi nga xam ne dañuy rocc seen tuñ loo may tontu. ah xale yu góor yi bu ñu roccee seen tuñ yi c'est juste que ni dañuy day rafetal rek mais tamit baaxul daal dañ lay dëkkal fa nga xam ne dëkkoo fa daal ay góor jigéen nga genre yooyu lañ lay wax et moo tax mais daal moom man daal gisuma daal man. lu ci lu ci kii daal mais dafa rafet rek wàcc tuñ moom dafa rafet rek daal. yow neex na la quoi. waaw ah, neex na ma franchement. waaw neex na moom. kon yow bokk nga ci xale góor yi ñuy sarme. <laughs> non même pas non bokk ma si. amoo copain bu koy rocc sa copain du koy def. non non non non du ko def. lu tax mu neex la. genre dafa rafet rek boo gisee góor bu ko def nii day rafet daal waa te yow soo la soo doon lancé benn message ci ñi nga xam ne dañ koy def cest à lan nga leen di wax ñu bàyyi ko wala ñu continuer. bon ñu bàyyi ko laa leen di wax parce que genre rafetul ci góor daal. ah man maa ngi tudd Moustapha Diouf. Moustapha Diouf sa tuñu xonk na yow da ngay rocc. non loolu du sama yëf man doxuma si yooyu. lay wax ci booy yi nga xam ne ñooy rocc seen tuñ. ah booy rocc seen tuñu moom mooy loolu yooyu moom du yëfu góor man ñu koy jaay sax laa gën ñoom ñoo ñoo deful lu war quoi parce que loolu du yëfu góor rocc xam nga baaxul lekk jël sa tuñu yàlla nu mu la sàkkee nga jël bëgg ko def neneen wala pour charme ñu bëri moom charme xale jigéen ñoo leen si dugal ñeneen ñi am na ñoo xam ne ay lañ bëgg seen waa kër bañ a soupçonné dañuy tux moo tax ñuy rocc mais yow ànd nga ci rocc bi quoi jigéen góor góor buy def yëfu jigéen. non ànduma si ànduma si franchement parler ànduma si. cest à boo leen doon wax lancer message tey bon message ngeen lancer nañu bàyyi wala ñu continuer. non franchement parler moom ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko parce que rocc moom baaxul. baaxul sax ah du yëfu góor loolu du yëfu góor. Mhm. ñu bëggee la ci li nga mel mais du rocc surtout genre yooyu moom bu ko rafetul sax ci jigéen asatu ci góor moom. non mais xale góor lan moo tax ñuy rocc seen tuñ yi xam nga am na jigéen yoo xamante ne loolu moo leen neex ñu rocc tuñ affaire yooyu noonu entraîné ba ceene yooyu leen neex loolu moo ni ci dugal. mais bu góor bu rocc tuñ. ah non la noonu pas ngay rocc waaw. mais tey laajte benn message ci góor yi nga xam ne dañuy rocc loo di wax. xanaa ñu arrêté ko te bu ko seen rakk bu jigéen doon def sax ñu tere ko góor day naturel. nañ nañ nañ mel rek comme ni leen yàlla bindee moo gën. mais am na xale yu jigéen yu koy def yow sa tuñ bi xonk na de. ah man li tamit naturel la waaw. waaw man moom dama ko def parce que wóoru dafa am ay conséquences. waaw ah, ma ko def moom. ok merci. ok au moom dañu war a bàyyi ñu def quoi rocc moom du yëfu góor quoi loolu si jigéen nañ ko gën a taamu quoi yaa ngi gën a xam mais rocc moom du yëfu góor quoi gars yi nga ko war a bàyyi yàlla lu mu la bindee nga bëgg ko teg beneen loolu quoi loolu bi ñu si yàlla dinañ xam ni ko diggalee ñoom quoi loolu du yëfu góor quoi waaw. mais yow moom doo rocci quoi yow doo rocci. ma rocc man man man man dugguma sax si yooyu quoi man góor yàlla laa Baay Faal laa non man tijaan man du ma du ma rocc xoo sama tuñ nu mel. naturel la quoi. non la. waaw man doxuma si yooyu quoi. léegi la wax sa morom yi nga xam ne dañuy rocc ñoom seen tuñ ba mu sax. xanaa ñu bàyyi rek ñu bàyyi rek gaan ñu bàyyi rek ñu bàyyi rocc yi parce que yàlla lu mu la bindee nga bëgg ko tegee na la def sa yëfu bopp ñuy sangu quoi. waaw waaw loolu man da si bopp. ça yaa bien. ça tur bi naka la. Mame Diarra. Mame Diarra ça va yow naka si naka nga gisee xale yu góor yi nga xam ne ñuy rocc seen tuñ. ah du la rafet moom wax dëgg fa neex yàlla parce que léegi dëkk bi ñu nekk nii xale yi góor ñi tàmm nañ di jël ay roc ci ay type genre affaire yoo noonu di ko def seen tuñ mais parce que lépp rek pour charmer xale jigéen ñi la mais tam bu ba seet xale jigéen ñi ñoo ko nangu parce que da ngay gis xale bu jigéen bu benn xale bu góor ne ah kii tuñam mi dafa rose daf ma neex dugg na fi génn fi góor ñi moom lu ñu def rek jigéen ñi leen ko ci buus mais man moom gisuma ci benn affaire bu rafet nag dëgg fa neex yàlla. jigéen ñi góor yi nga xam ne ñu ngi rocc seen tuñ Euh, franchement moom loolu moom rafetul ñaaw na torop ci gis-gis te ñaaw na torop ci dégg-dégg parce que buñ ñëwee di ñëw xale jigéen dëgg la ñu ngi rocc seen tuñ yi mais góor dem ba góor di ko def moom dafa ñaaw torop jamono ji léegi xale yu góor yi dañuy sol solinu jigéen di dox doxinu jigéen et tout lépp lu ñuy def daal dañuy jël di toppatoo xale di toppandoo xale jigéen ñi. yow loolu est neex na la. bon neexuma neexuma mais am na ñoom te neex na leen ci vois ñu ñëw parce que sa c'est day day charmer xale jigéen ñi di leen di leen di leen xëcc daal pour ñu ñëw ñu commencé di màcc seen tuñ et tout loolu te moom rafet ñaawut na torop ci gis-gis moom franchement. mais amoo ci benn copain boo xamante nii dafay rocc tuñam. non bëri naa ci ay xale yoo xam te ne ñuy daj seen tuñ mais bon dañ leen di tere après li ñuy jël ay Carmex wala Medex wala ñu jël ay produits chimiques wala ñu jël xeesal comme genre euh, crème rose ay du du n'importe quoi la ñuy jël moom franchement pour lépp seen tenue rouge. yow noo gisee loolu ci société bi lu baax la wala lu bon la. bon du ma leen digal du ma leen lu bon mais c'est pas bon franchement franchement rafetul moom ci góor. ñëw ñu lay laaj sa gis-gis ci loolu mooy góor ñi nga xam ne ñu ngi xeesal seen i tuñ ngir mu xees yow naka naka nga gisee lool ci réew mi. gis lu bon rek ah. <laughs> Euh, loolu nag moom euh, man mii di wax yow ay jamono mat nag ñeenti at ci ginnaaw samay xarit dañ ko jaay ba doon naaw sax euh, doon def daanaka waaye moo ko def daanaka une semaine rek sama tuñu commencé xonk sama am samay xarit yu ma xool ne ma yow Pam Ngom sa tuñu ngi xonk lu ci nekke ni may leen ah ma ne daa am benn produit bu may diwul comme gars yi ñu xewal xonkal comme gars yi ñu fashion des fois xewal de xonkal tuñ moo tax ma commencé ko def waaye bi ma demee ba nit ñi yaa damay xool ne ma daal di sa wàll ma xam ne di fi kilifa itam waaw te itam euh, <laughs> ma ci rocceekuwaat nag euh, la ma ci yoroon ma daal kay sànni itam waaye gis naa ne nit ñi nekk na modd boo xam ne tey ndaw yi xewal nañ ko moo di tey jii xale bu góor boo gis ñi ci ëpp xale góor yoo gis dañu dañuy xonk seen tuñi te loolu man ki ma gis soon mu koy jaay euh, xarit la woon ci man boo xam ne xamoon naa ko mu ngi koy jaay boîte bi bu ndaw la kon jaay 15000 ba 10 000 francs bon parce que boo defee une semaine rek sa tuñu daal di commencé xonk waaw commencé xonk parce que ñoom des fois dañuy topp mode boo xam ne des fois dañuy dañuy sax ñu xam ne yoo xam baax na wala nañ nañ def rek waaw mais dem naa ba xam daal du yëpp nit ku baax pour man loolu laa gisee noonu laa ko jàngatee tam parce que euh, tey bu nekkee da am foo bokk wala ñu am nu lay xoole te am na noo xam ne boo ko defee rek euh, bon ku nekk sa gis-gis nag ku nekk ak si gis-gis mais man moom personnellement daanaka xam ne dama ko mujj bàyyi man parce que dañ ma yet ne ma ah, du sa wàll ñoom du sa wàll dama ko bàyyi mais xam naa ne gis naa ci góor ñu bari tey ñu baree bari bari bari dañ koy def waaw dañ koy def waaw ñooy romb léeg-léeg sax am na sama benn xarit boo dama ko yeb waaye bu waxee maa ko sawaay yow sa tuñ yi ngay xonkal nii di jaay taar laaxee wax carrément parce que léegi da ngay jàkkaar sax mu xonk tuñuy màcc ko di ngay waxee <laughs> léeg-léeg mas xaw ko sànni xëy na ko yow da ngay xaa ngay xam ma damay jàpp yëfi jeunesse la xëy na loolu lañ ci jublu di kii mais bon parce que man li ci sama problème mooy ndax produit yi nekk lu gën ci yaram wala gënul ci yaram tamit loolu jar seetlu la waaw parce que damay xool ma ne ah, lii nii bu ma ko méngale ak xeesal daanaka soriwul ak dara te xeesal ne nañ produit la boo xam ne baaxul ci yaram te déjà lii boo ko defee say tuñ euh, ni xeesal def yaram lay da ci tuñ est-ce que def ay effet ëllëg yoo xam ne tey dina euh, gàllankoor xam nga loolu lu mat sóoraale ñu gis ne aussi tamit nekk na loo xam ne lu doy waar la gis góor buy jigéen jigéen lu euh, jël xeesal di xeesal say tuñ màcc lan mooy sabab bi. waaw xam nga tey jii dañoo toll ci jamono joo xam ne njaboot moom da ngay def li nga mën rek mais suñu borom mooy sàmm waaw da ngay def li nga mën rek mais suñu borom mooy sàmm. parce que tey jii ku ci yor sa njaboot bu bu jubee rek wala mu baax rek euh, gëmal na du yow mais ndimbalal yàlla suñu borom la waaw mais daal xam naa li ma gëm te xam ko mooy euh, toll nañ ci monde boo xam daanaka boo ànd góor sax sa morom góor lëngu ko sax tem gaa yi jox leen <laughs> borom ñaari tur waaw ba tax na wóorul parce que dama am sama benn mag dafa jóge Amérique euh, comme ñun Sénégal dafa ñu dara mii dara ñaare mu ñu àndi dox ci kaw tali bi nii ma lëng ma jàpp benn loxom mu ma boy bàyyi sama loxo lii bon Amérique dañ naan ñu ay góor jigéen lañ waaw <laughs> nga xam ne kon comme dañoo toll ci man boo xam dañuy dem ba am yoo xam dañ koy nat di koy xool ci nit naan lii moom laak du moom euh, ba noppi yow ngay ngeen jël benn mode di sol ay penw comme yi fi jigéen yooyu xam ne yëre yenn yëre yi wala jël yenn yëre yi xam ne daanaka dafa xaw a jigéene boo xam ne boo ko xoolee mbubum euh, mbubum jigéen nga xam gën a foogee que mbubum góor yooyu bu ko góor di sol daanaka tey ñu toll ci mën wax ne dañuy léegi ni ñaañaan góor jigéen ñaak léegi la dafa nekk loo xam ne euh, mën na dëkkal foo xam ne dëkkoo fa waaw mën na dëkkal foo xam ne dëkkoo fa moo tax daal man gëm naa benn affaire mooy que góor moom tu dafa fi fu góor. góor dafa war a def yi fi góor ñu gis na aussi tamit ba ci jeune marabout yi nga xam ne tey ñu ngi wooteewu faj ci tele yi koo ci gis tuñu a ngi xonk loolu est-ce que nekkul ne aussi tamit influence la ci ndaw ñi parce que bu ñu gisee euh, ku ci mel ni royukaay boo xamante ne nii mbooloo da lay topp ay ndaw dañu lay topp bu ñu la gisee génn yi nga koy def moo xam ngay artiste moo est-ce que tamit influence la pour yi nga xam ne ñu ngi koy def sans ñu rendre compte lii góor war ko def lii yëfu jigéen la jigéen góor buy jigéen jigéen lu góor jigéen lañ ko mën a woowee yow wax ci loolu. waaw xam nga euh, ñi nga xam ne ay royukaay lañ leen jàppee parce que tale du tale du ku ne moo ci war a feeñ pour man. te ñooñu nga xam ne ay royukaay lañ leen jàppee nga xam ne dañuy génn ci télé di joxe ay exemple di joxe ay ay xalaat wala ñuy nekk wàllum faj ak leneen euh, ba nga xam ne ndaw ñeeg mag ñi ñu bari dañ leen saan kilifa ñëpp dañ leen saan pour man ñoom bu ñuy joxe exemple ci seen comportement seen toogaay seen lépp war na nekk euh, euh, doxalin boo xam ne lu ñuy rafetlu lay doon ndaxte da lay leer xale yi ñu leen seetaan. waaw xale yi ngi saan seetaan mag yi ngi leen ndaw ñaa ngi leen seetaan te xam nga ndaw day copier xale day copier te bu gisee loo xam ne tey jii def nga ko tey jii que ce mu nekk da nga xeesal je sais wala tey jii sa tuñ xonk day jéem a roy ci loolu ne ah kii de ni mu mel <laughs> dafa xaw na ma neex parce que kii dafa xees ah xaaral ma xeesal xawut léegi bu demee laa ci ñenn ji comme si société bi lañ nekk ñu ne ah kii day xeesal wala ñu ah kii dafa tuñu affaire am na lu koy rosa ah, xaar ñu def ko léegi nag yooyu xam nga day dem ba mën na indi yeneen ak yeneen mën na indi yeneen ak yeneen moo tax euh, comme loolu moom que ce soit mi les jeunes marabout wala keneen moo ci laaj laaj yem ñoom ñëpp daal ku ci mucc ak ku mu ci mënti doon rek nga xam ne da joxe euh, dañ lay bon exemple di feeñ ci média yi télé bi nga xam ne wax dëgg yàlla royukaay nga euh, war nañ gën di jekkal toogaay wala ni gën a jekkal xalaat yi parce que société bi ñun ñoo ko moom suñuy doom ñoo ci nekk su ñuy jarbaat suñuy waajur ñoo ci nekk te ñun ñoo mën a jàppale suñu bopp d'abord xam nga dañuy wax président de la république mais président de la république mënul euh, génn di dugg kër gu nekk mu saafara la fa ne ci problème mënu ko d'abord ñun suñu bopp ñoo war a njëkk a saafara problème bi ñu Sénégalais yi parce que ñun ñoo nekk ñoo dëkk ñun ñoo nekk ñun ñooy fan ñun ñooy yeewandoo kon ñun ñoo war a saafara suñuy problème d'abord avant président de la république moo tax euh, buñ nee buñ moo tax léeg-léeg damay contre ñu jël lépp yéex ko président parce que président mënul lépp <laughs> du ma politicien nag mais en fait euh, loolu mooy réalité quoi mhm, mooy réalité. maa ngi fi maa ngi sant si yonent lan nga lan mooy sa ci góor yi nga xam ne dañuy jël ay produits di ko diw seeni tuñ mu xonq ak yooyu. doomu aadama li muy def lu ne dafa warul baax loolu du nit ku baax dañuy war a roy si yonent bi ndax yonent bi daawul def loolu góor ak lu mu moom jigéen ak lu mu moom. loolu àdduna na dafa yàqu léegi ndax àdduna ba mu yàggoo mooy góor ñi di defee fu jigéen jigéen di defee fu góor fa la tër ji am. ok ñu gis ne aussi tamit dafa bëri phénomène la xam nga ci société bi ak yooyu mu ngi yàqu ak suñu religion yow lan la wax par ci loolu. man daal li may wax mooy waajur yi nañu xoolaat seen waa seen doom yi surtout maa ñu jigéen ñi góor ñi parce que góor ji warul jël ay tuneem di ko wëcceelu nii dafa yiwul nit day def lu yiw ñoom doomu julli da def lu baax. waaw def lu baax di wax lu baax di dox lu baax man loolu laa xam ndax suñu maam yi dañ doon dox lu baax di wax lu baax man lu baax dong la war di def du dëgg waaw. tey soo doon lancé message boo xamante ne jëm ci loolu lan ngay wax xale yu góor yi nañ ko bàyyi. na xale yu góor nañu bàyyi loolu te xam ni dee ak dund ñoo am xale day dee mag day dund day dee nañu jéem a gëm yàlla di def lu baax ay tuñ ñu koy rocc yàlla lu mu la may loolu dong la tey man sama jëmm ji ma yàlla may munoon naa ne dama koy damay dem opéré gi. pour lan loolu am a ko may yàlla kay lu mu la may loolu dong la waajur wax nañu ba sonn de xale yee të waaye waajur yi ku si ne mi ngi wax góor ak jigéen ñoo nga waaye xale yi nag ñoo të ku si génn def lu ma neex ku am lu ku def lu ma neex am lu la neex waaw. mbooloo mi maa ngi nuyu di leen sargal di leen nuyu képp si turam ak si sant ah mbir mi day ñun ñëpp ñoo ko gisandoo. mais loolu daal ñun sénégalais baaxul suñu dëkk ndax fii dafay nekk dëkk koo xam ne ak quatre-vingt-dix pour musulman mel ni dëkk koo xam ne dëkku sëñ Touba Seydi El Hadji Malick bu Kuntan Yaasaan Limaamu Laay yow muy nekk dëkk koo xam ne mag yooyu yëpp dañ fiy daje ñu dem ba en Afrique ñëpp di wax dëkk bi muy dëkku teraanga sunu maam yi bàyyi ñu sutur am na yenn yoo xam ne ñun buñ ko doon def sax dañuy nëbbatu waaw réew mi nag wala lu baax newoon ba léegi ñu ñaa ngi nekk di def lu baax damay njaax génération nuwel bi nekk nii di jël seen tuñ di ko def ba mu weex ñu si jublu ni ah dañuy def pour gën a rafet loolu yëpp si góor doon koy defe leen loo xam ni du tund yàlla yàlla jox mu doon tund loo xam ni dafa naturel kenn mësul baaxe góor gis ko muy weexal ay tuñ day weexali ay xeesal dafa rafetul ah rafetul de nag bon ñun mun lu lool ñu gis loo xam ne mi ngi daw ñu ñëw suñu njaboot ñu arrêté ko de loolu ñëpp dañ si war a xeex ñëpp dañ si war a xeex jàpp si waaw maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jégalu ñëpp bu fekkee ni nag wax ci am na ay jumte sax maa ngi jégalu